leen nuyu di leen jaar yéen ñi suivre sport ñu war a ñëwoon ci benn vidéo wax ci match bi ak ki nga xam ne mooy al euh, Guinée ñëpp tiyoon Sénégal doon na Guinée biit Iliman ak ki xam ne mooy Abdoulaye Cheikh passe woon Iliman Ndiaye moo euh, Krépin Diatta tey xool yëpp a sedd ci moom tey ñëpp a nga ko te kaasal na Iliman dafa war a ñëw titulaire mais nag euh, li mu def baax na ku ñëw deuxième bi te def lii euh, dañu gis ko mi am dëgg ci suñ kaw bu Iliman Ndiaye départ bu defu la war Iliman Ndiaye bu ñëwee def la war a def rek loolu tey lii bu doon tey max bi dem prolongation la ah dana war am tolloog quatre minutes ndax ñaari tension ak dix minutes ci terrain bi su war naa moo dugal ndax day équipe bi football bugul yàkkanti football lépp loo gis ci yoon la ndànk-ndànk rek ba kañ nga am li nga bëgg te franchement insisé réussir na loolu ngeen abonné ngeen commenté ngeen xaar ci yeneen vidéo ak yeneen ak yeneen jàngat bu leen tayal fii mu sport lépp si lay leere duñu bàyyi dara ci Sénégal yi lay ñëw ko ak mais franchement ko tax ci may ay def nañ lu carton plein lañ génne ci li nga xam ne mooy seen poule te franchement ñëpp jàppoon nañ ne noonu lay demee mujj demee noonu kon xol yëpp sedd nañ waaye nag li ñuy ñaan mooy dem jëli coupe mais nag nañ ko ne concentré ci max par max yi nañ xaar max tey jii ñu xam kan lañ war a